lu ñu war a defal suñu askan ñi ngi koy defal suñu askan te leen buñ koy defit duñ leen tàggu kon buñ ñu fontoo ñoom ñooñu tëdd ci seen bureau yi ba mu neex leen ñu yeewu ndekki ba suur nekk ci seen climatiseur di fontoo nit ñi yaakaar na ñoom ñooy liggéey liggéeyu leen dara su ngeen dee liggéey ngeen wone ko su ngeen amee ay masques yu ngeen jox askan wi pour ñu takk ko protéger wu ngeen wane ko waaw ngeen xoole ba seen moroomu ministre génne arrêté normalement ci yoon ñoom dañoo waroon a adapté wu ci décision wu ministre de l' intérieur dañ ci waroon a adapté wu. ni ci adapté woo mooy dégg nañ ne seen moroomu ministre mi ngi waaj tere masque rek ñu tabax ñu ñu jënd ay ay milliers de masques tuur ko ci réew mi. bu nit ñi bu ñu leen joxee masque may leen ko ba pare bu boobaa nag bu ministre de l' intérieur tere tere bi justifié wu. mais tere bi ministre de l' intérieur tere c' est pas justifié parce que bi muy tere dafa fekk nit ñi préparé wuñ pour am ay masques. te yi amuñu njëgu masque waaw li leen mën a defarloo t-shirtu APR 3000 francs mayee ko gratuite moo leen war a mënoon a defarloo des des centaines et des centaines de milliers de masques li leen mënoon a defarloo la li leen defarloo ay junni junniy t-shirtu politique wala seen mbale moomu cleaning day xawma bi ngeen doon def di defar ay junniy junniy t-shirt di ko maye gratuitement te t-shirt bu ci nekk yéen a ngi ko defarloo 2500 wala 2000 francs mais war ngeen a mën a jënd benn war ngeen a mën a jënd ay junniy masque may ko askan bi ay junniy masque may ko askan bi nit ñi di mer li ma tax nit ñi di wax parce que ay nit ñoo xamante ne bi duñu nit yi dara toog ci seen i di fantoo nit ñi di di génne ay kayit yoo xamante ne bi di tere nit ñi loo xam ne ñoom ci seen bopp defuñu li leen war donc loolu laa bëggoon a ubbee euh, ci ci ci ministre yooyu nga xamante ne bi hmm, ñu ngi jóg naan ay affaire de masque yi dañ ko war a xool ak yooyu. Suède confiné wul contamination coronavirus am na fii Sénégal de mais coronavirus bi fi am bu léger la <laughs> loolu moom lu leer la coronavirus bi am Sénégal am na fi ah balaa ñu may woo ne <laughs> waa ji nañ ko yóbbu kaso parce que nee na coronavirus amu fi <laughs> coronavirus am na Sénégal waaye coronavirus bu oyof la light coronavirus light moo am Sénégal coronavirus bu garaaw moo am Europe parce que coronavirus bu am Europe yéen a ngi gis vingt cinq mille morts coronavirus bi am Sénégal du cas garaaw dégg ngeen Moussa Seydi wax na ko dégg ngeen Bousso wax na ko Sénégal amul ay cas yu grave cas yu yi fi am mooy ñi nga xam ne dañoo amaale woon feebar doxe ci faatuwaale génn ci àddina loolu mooy cas yu yi mais li ma bëggoon a wax ci coronavirus bi foofu xam ngeen lan la nee nañ nañ tëj jàkka yi parce que dañuy dañuy dañuy dañuy kii dañuy dañuy mën nañu rassemblement bi rassemblement bi yeneen koy gis fi ñuy jëndee mburu fi mu toll nii rassemblement bi yeneen koy gis ci kaar yi ñuy xëccoo rassemblement bi yéen a ngi koy gis ci mbeddi ndakaaru yi bés bu set yéen a ngi koy gis ba tey jii nii bëccëg bi rassemblement yaa ngi fees dell foofu te jumaa yi ñay julli ji jumaa bu ñu écarté un mètre kuy dem ji jumaa yëre yu set ngay sol dangay sangu ba set dangay jàpp ba sell boo ñëwee ci buntu jumaa ji laal laal euh, hydroalcoolisé dugg ci biir jumaa ji nit ku set kooku moo gën a set fopp ka nekk marché ba nit ku set kooku moo gën a set fuuf ki nekk marché ki ne ci jumaa ji di julli moom en aucun cas moo gën a set ka ne marché te yéen a ngi gis marché yi fees dell ba tappaañoo yéen a ngi gis fi ñuy jëndee mburu fees dell yéen a ngi gis garage yi fees dell kon buñ fi taxaw mukk naan jumaa yi ñoo fi indi coronavirus bu fekkee kaa communautaire cas communautaire yi tasaaroo nañ Sénégal cas communautaire yi ñi ngi Sénégal ne xas bu fi kenn taxaw di stigmatiser benn dëkk wala benn région wala benn gox naan cas communautaire am na fii am na fee cas communautaire yi fépp la am